mbokk yi ba tey ñu daal di wéyandi ak yéen ci xibaar yi chaîne chaîne YouTube Buzz 24 Sénégal bokk na si nag bataaxal bi nga xamante ni Abdoulaye Mbow nekk njiitalu groupe parlementaire bu benn bokk yaakaar daj na koy def jëmale ko ci premier ministre di Ousmane Sonko ci boobule bataaxal nag di ci samp ay laaj jëm ci ndaw yi nga xamante ni ñoo ngi jël gaal yi di si ñàkk seen bakkan moom Abdoulaye Mbow nag di samp laaj gouvernement bu yees bi lee ana lan lay xaar waaye tamit ana yan mesure la ñu jël jëm ci ñoom ci ay kàddoom moom Abdoul Mbow di xamle nag moom Ousmane Sonko bu ñëwee foofule ci assemblée nationale def ab déclaration politique générale dinañu xam nag ana fan la ñu jëmale réew mu Sénégal ba foofu foofule nag ci assemblée nationale la ñuy daal di desandi mu mel ni nag kon jamono jëlee groupe parlementaire yi nga xamante ni ñoo fa nekk jamono jëlee noppi na ñoo ngir rek daal di jubbanti règlement intérieur yi way tamit a defaraate seen article ngir nag moom premier ministre di Ousmane Sonko mun amal déclaration politique générale foofule ci assemblée nationale